bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu xaq di dellu siwaat di àndaat ak yéen ci xadiisu mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi yi nu leen di indil tuddee ko xadiis di suur xadiisu tey bi day wax ci jenn waay ju ñëw yomal xiyaam wala ndaw su ñëw yomal xiyaam waaye nag jaamukatu yàlla la woon ay julleem mànkewul ay kooram mànkewul amoon na wërsëg demoon na màkk xëy na wala mu doon génne asaka daan na saraxe daan na jokk mbokk euh, daan na def yu baax yu bare bari yi ko yàlla sant muy ay farataam ba ci naafilaam yu mu coobarewu dara manqué wu ci waaye bi mu ñëwee yowmal xiyaam ci kanamu sunu borom tabaraka wa taala lii mooy gàllankooram ba tax yiwam yépp ñu jël ko nangu ko jox ko keneen kooku mooy kan ñu déglu xadis bi ñëw ci primi abi hurayra radiallahu anhu moo nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne atadruuna man il muflisu qaalu al muflisu fii naa man laa dirhama lahu wala mataa fa qaala inna al muflisa min ummati man yati yowma alqiyaama bi solaatin wa siyaamin wa zakaatin wa yati wa qad shatama haada wa qadafa haada wa akala maala haada wa safaka damma haada wa daraba haada fa yuctaa haada min xasanaatihi wa haada min sayiaatihi fa yuctaa haada min xasanaatihi wa haada min xasanaatihi fa in faniyat xasanaatuhu qabla an yuqdaa maa calayhi uxida min xataayaahum fa turixat calayhi summa turixa fi nnaar rawaahu muslim yeneen yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ki nuy saisir yowmal qiyaam ki nga xam ne day ñëw ñu nangu yiwoom jox ko keneen tibbi bàkkaaram wala tibbi bàkkaaru ñooña xëppal ko bu ay yiwam jeexee mu ne kooku nekkul ku ñàkki dërëm de ko am dañoo ñëw nangu ay bagaasam fii ci àdduna kooku lañ xamee muflis dañoo ñëw saisir ay bagaasam teg ci loxo lam amoon ci bien yépp ñu nangu ko loolu fii ci àdduna lañuy def nit loolu waaye yowmal xiyaam waxuma kooku de nekkul ko indaalewul yi nga xam ne ci àdduna mën nañ ko nangu ndax yooyu sax doo ko fa indaale waaye kii perte dëgg yowmal xiyaam ñu nangu yiwam comme ni ñuy nangoo alalam fii ci àdduna bu yoraloon nit te fayu ko ba yoon dal ci kawam di jël alalam di ko fayee kooka mu yoral wala ñooña mu yoral yomal xiyaam bagage ya nga fay indaale yiw la tudd nee na yomal xiyaam nit ki dafay ñëw ak julli bi solaatin ak julli yu bari wa siyaamin ak koor yu bari wa zakaatin ak asaka yu bari waaye nag bi muy ñëwee ñu ne ko lii yépp yaa ko def ci yiw jullikat nga woon woorkat nga woon génnekatu azaka nga woon kaay ñu wan la sa yiw yi nu mu toll ñu wan ko ko mu bég lool biñ ko ko gaaralee ne ko nag geesul waqat shatama xam nga diw male kee de yaa ko doon saaga ci àdduna mos nga koo saaga te jéggalu la ko woon jéggaluwoo ko woon ba mu jéggal la ci àdduna tey nag fii amul jéggalanteeg baal ma li fi am bisu àtte la su àtte la sa digganteeg sa morom foofu amul négociation sa digganteek sa borom la ñuy la sa borom di seet ndax dana la jéggalam déet yenent bi nee na ñu jël sa alal jox ko wala ñu jël sa yiw jox ko ka nga saaga woon wa xadafa hada ñu ne ko geesuwaatal mu geesu ñu ne ko kay de mas nga koo xas mas nga koo xas ci àdduna mës nga ko waxal loo xam ne weñ wu ci dal dee ci xas ko wate lislaam bañ xas gor ba ku xas gor mu ne nañ la caw juróom-ñett fukki yar quatre yar mu ne nañ la ko xas fii ci àdduna ngir bàkkaar bi mën la teggiku buñ la ko cawul boo ñëwee yowal xiyaam sa yiw la ñuy tibb jox ko kooku nga xasoon ci àdduna waa akala maala nga bëgg a dem ñu ne ko diw mee yaa lekkoon alalam kaay danga ko jaayoon doole jël alalam danga nga wuuru joon da nga njuuj njaajoon da nga tappale woon dala doon liggéeyloo nga war ko liggéeyal mu fay la te liggéeyaloo ko la nga ko waroon a liggéeyal ñu tibb ci sa yiw jox kooka wa safaka dama hada ñu ne la keekan mas ngaa tuur deretam da ko mas a agressé da nga ko mas a jam yaa mas a tuur deretam moom it ñu tibb sa yiw jox kooku nga mas a tuur deretam wa daraba hada ñu ne kële yaa ko mas a dóor da nga sukkandiku woon nag ci sa tëni di jaay doole ku la neex nga pes ku la neex nga kurfañ ku la neex nga weq te yoon mayu la ko delloo si ordre mayu la ko teg nit ci fañ ko war a teg ci tegu ya la la ca yoon tëralal jalgati nga ko mais sukkandiku nga ci sa tëni sukkandiku nga ci sa doole maa la man danaa la duma ba tax nga doon dóor nit ñi moom itamit yomal xiyaam nga ñëw ñu tibb sa yiw jox ko kooku nga xam ne mas nga koo dóor nee na ñuy jël sa yiw di jox kii di jox kee di jox kii di jox ba sa yiw ne pëng jeex deseetoo dara ci yiw te léegi ña nga doon tooñ ci àdduna yoraloon leen àq des na lan la mujj def mooy dañuy seet ñoo ña nga doon tooñ sallallahu alayhi wa sallam nee na euh, uxida min xataayaahum ñu jël ci seen ñaawteef ya fa turixat alayhi ñu xëpp la ko summa turixa fi naar ñu jël la tàbbal la safara wal iyaadu billah bu seen yiw yi jeexee te yow la leen tooñoon jeexul ñu tibb ci seen bàkkaar ya xëpp la ko jël la tàbbal la safara wala iyaadu billah kon mbokk yi julli yeek woor yeeg génne azaka yeeg def yu baax yeeg na ànd ak sàmm sunu làmmiñ yi ci moytandikoo xas gor na ànd ak moytandikoo tooñ mboolem xeetu tooñ na àndandikoo na ànd ak mooy lekk alalu jàmbur lekk lu la lewul ci moomeelu jàmbur na ànd ak mooy dóor nit wala nga tuur deretam yii yëpp ku koy def ci àdduna fekk jullikat nga woon woorkat nga woon demkatu màkk nga woon génnekatu azaka nga woon jàngkatu alquran nga woon lu baax lu ne yaa ngi ko doon def ci àdduna waaye yowmal xiyaam boo ñëwee te ñii nga doon toggoo lii ci seen kaw ci seen alal ci seen der ci seen deret te jéggaluwoo ko ba ñëw ci kanamu yàlla daan yii moo lay xaar wala yaatu billah yàlla ñu si yàlla musal lii lañ leen indiloon ci xadisu tey bi di leen sant di leen gërëm ci seetaan bi ba ëllëg ak jàmm ci beneen xadis incha allahu taala wasalaam